waaw maa ngi siyaare waat waa Kun Fayakoun TV yëpp di leen jégalu fan bu baax tey nag dama ñëw ci sama mbokk jigéen ñi jigéen goo xam ne danga bëgg sa boroom kër dootul am sago ci yow lu yor jox la ko walla lu mu mën a ne dootul am sago ci yow dootul am bànneex fenn kudul ci yow benn baat boo xam ne juróom ñaari yoon rekk nga koy binde eh, raxase ko sa kanam seeg sa seeg sa borom kër wallahi bis bu ko defee dootul amati sago si kenn waaw bànneex moom dootu ko amati kenn si si yow rek waaw léegi nag xam naa ne nag du neex yenn góor ñi waaye nag e, xam-xam la rek waaw xam-xam la du dara e, dafa doon nag loo xam ne ne du ay caaxaan benn baar rek la sept fois Euh, ngeen jël ko bu baax waaw ngeen jël baati araf yi may wax pour bu ma euh, ndax yenn saa yi may woo pour ñu may jot day euh, problème la jël leen kaf kafiika sala yaa iilu kaf kafiika sala yaa iilu kaf kafiika boo defee kaf kafiika kaaf faa kaaf faa jeex na kaaf fa ñaari yoon kaf kaf kefiika sala yaa iilu mooy eh, nga siin su wow sala yaa iilu siin su wow yaa nga def ko nga bind ko juróom ñaari yoon raxase ko kanam sëy ak moom wallahi dootu am sago si yow <laughs> am na beneen baat nag jami jamilu munhimu hasimu waaw boobu duma ko wax <laughs> juróom-ñaari yoon nag waaye nag boobu moom bokku si du ma si boole.